yàgg mu yàlla may la gudd fan yow itam. amin yàlla may wér. dëgg la. li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal ci barke sa sëriñ ba ilimaanu ilimaan ki jiite woon alxaaji abdul asis mu xudbaal ko di cheikh abdul xaadir mbàkke dëgg la abdoulaye maa ngi laa ak Mara Fall ak wa ñi xam ni seen maam ak sama baay benn lanu seen noo toog fii di waxtaane ku xam ni lislaam lislaam jamu ko mbokk jamu ko tarixa jamu ko ci lu bëgg waxtaane tey jàkka joo dem ci biir Sénégal ak fu du Sénégal na mhm. see àq bil àq di jib Cheikh Sina Alhaji Malick la boo gisee jumaa ja ca Paris mhm. ke mooy Alhaji Abdou Kane moo jur soxna Astou Kane moo jur Cheikh Seydi Ahmed Tidiane El Maktoum ak Seydi Abdou Aziz Al Amine boo demee Gabon alaaji ma joxu jong nasri àq bi làq di jib Cheikh Seydi Alhaji Malick dëgg la boo demee boo demee Abidjan kër alaaji Badou Cissé muqaddam ba na se aq bi laq di jib Cheikh Sidi El Hadj Malick la ki nu wax jëkk wax alaaji ci réew mi dem Màkka ziyaara ji sang bu tedd ba rasulullahi lu koy wax alaaji mi ngi jëkki ci Cheikh Sidi El Hadj Malick bala may wax dara nag maa ngi nuyu ak di ziar sama sëriñ Sidi Aboubacar Ibnu Alaaji Mansour di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan lool yàlla may ko wér lool tey ci ngoon jot naa ko muy wax la mu daan wax rek yaay magu kër gi yay sama trondoo baay yaay doom Sidou Boubacar mu jëkk toog ci xilaafa maa ngi ko nuyu ak di ko ziar sama xarit bu nu wax Makhtar Cissé ancien ministre moo ma ko passé mu nekk sa baax ga rek maa ko nuyu ak di ko ziar ak di ko ñaanal yàlla mu may ko gudd lool ak wér ba nu moom inauguré ji ju jumaa ji xam ne maamam moo ko sampaloon sunu bopp tabaraka wa taala Seydi Boubacar xalifa bu tedd ba 22 ba 57 muy jiite jumaa ja di jiite korite ga di jiite tabaski ja ànd ak rakkam ja xaritam ba soppem ba cheikhul xaw mi alaaji Mansour ak alaaji Abdoul Aziz Ablaye Mbaye Pekh Ablaye Mbaye Peex Ablaye. Nijaay maa ngi lay dégg. Ablaye Mbaye Peex. waaw Nijaay. maa ngi nuyu bu baax nag sëñ ba ca Touba. dëgg la. ki ki doonu sëñ Basiiru. dëgg la. Ablaye Mbaye Peex yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg Nijaay yow rek laay déglu. ki doonu sëñ Basiiru dëgg la dëgg la doonu xaadim rasul dëgg la fab tànkam teg ko fa ko baam tegoon wallaay mbay bi mu laata dégg xalifa mhm. sang bu sang bu tedd ba mhm. sëriñ Saaliw mhm. ma ne kor xaadim rasul lépp lu xew ci diine ak ci lislaam bi mu nu wool sëñ Mountakha dëgg la maa ngi ko nuyu dëgg la di ko ziar wallaay wallaay barki dem rek laa jot ndawam muy Abdoulaye Mbaye Peex wallaay mu jóge ca mu jóge ca dëkk bu tedd ba maam juru jaari busu poroxaan dëgg la barki barki rek laa jot ndawam <laughs> muy Abdoulaye Mbaye Peex mu jóge cam mu jóge ca màggal ga. wallaay wallaay mbay. di di ñaan ci réew mi nag jàmm bala nuy commencé émission bi. dëgg la moom moom la la di ñaan la Alaaji Abdou Aziz daan wax yal na yàlla tàppe xol yi xalifa bu tedd ba sunu baay Alaaji Abdou Aziz ne boo amee sa ëmm. Hmm. mu nekk ci gaal bul ñaan ëmb ba mucc bu gaal ga muccee rek ëmb ba mucc na. dëgg la. ci ré ci réew mi nag. réewu jàngu la. waaw dëgg dëgg la dëgg la. ci nag duru ko mooñaale. Cheikh Seydi El Hadji Malick. Hmm. sunu maam ju baax ja. dëgg ak sunu maam Xaadimu Rasuul <laughs> ak sunu maam Hadj Abdoulaye Niass. dëgg ak sunu maam Cheikh Boutou Kounta. dëgg ak sunu maam mi xam ni Seydina Issa. walaay roo walaay. ak kilifa diine yëpp. seen allahuma. yàlla nangu na ko. dëgg la dëgg la dëgg mbay. boo xamee réew mi. les tunnels à prix octata française ay coup d'état à am Nous nous nu ni teg xam ngeen ni Allah allahuma mag ña la de ñoo non, non, non, non, kon nag kon nag yaakaara bu ca kanamee waaw waa nijaay ba jarbaat yi yëngu dama la bëggoon a laaj nga ñan ñii dama lay wax ñooy ñaan وبصاحب ختام خاتم الأنبياء فمنون علينا بخصد ختام دوننا وبصاحب ختام خاتم الأنبياء فمن علينا ربحون ختام موضوعنا وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء فمنون علينا بخوزنا ختام خاتم الانبياء فمنون علينا رب حسن ختام موضوعنا ابدا بروق تحت جوع ظلامي امواج ميت عمرو بوع شمامي ميقات الأنبياء فمنون علينا ربي حسن ختامي ñii nooy waa kër Moussa Leye kër daaw góor dëgg la waaye kër nag boo fa demee nuyul borom kër ga nag dëgg la may nuyu bugaan dëgg la dëgg la mbay ay ndeyam ak maamam dama leen xam ca ndar. wallaay dëgg la mu am jom. muy nit ku xam ni ay waajuram gërëm nañu ko. def lu rëy. waxuma rek sëñ Mbacke soxna loo mi sëriñam ci sëñ Mbacke soxna loo moo doon taaw ki xam ni histoire du Sénégal du ko fàtte mukk mu sëriñ Cheikh Fatma سرباء الحجاب عبد العزيز من عبد القوم نخي يوم قيامتي واي سرقال كي نو نيك غيسوما كو گن سيري شيخ فاطمه تي بو الك دنا ام غيرمال مامم خادم الرسول اك غيرمال بايام سيد مصطفى باكي والله والله لا اله الا الله بوغان نك sëñ Mbàkke Soxna Lo mooy sëriñam. <laughs> waaye nag par parloowul ci diine. déedéet. lu tax loolu. Mm-hmm. am doom. Mm-hmm. kër ndey kër baayam di nekk. Mm-hmm. ak i xaritam. wallahi wallahi mu ni kii Seydi Abdou Aziz Al Amin laa koy tudde lu lu rëy la. kon kii par parloowul. déedéet déedéet déedéet ci diine ji ak ci lislaam bi amee studio gouvernement bi yëpp taxaw hmm. ak les hommes d'affaires ak les marabouts mu hmm. invité Papa Malick dëgg la yaa na yàlla yokk leeram ak waa kër Xaadim Rasul yëpp le gardien de la Constitution, l'homme des grands projets de l'État. Le président de l'espoir. ni ko damay tukki le le la premier ministre. dëgg le yónnee ko Abdoulaye Dione. dëgg la. ñëpp wax ku koy C'est ni premier ministre kii Alaaji Mansour mbay laa ko tudde studio dëgg la dëgg la. bugaan bëggul sama bugaan bëggul fay. déedéet déedéet dëgg la dëgg ma bàyyi la nag Ablaye. waaw. Ablaye Ablaye fu ma toll. waaw. maa ngi lay maa ngi lay ñaan yàlla. walaay mbay. fu ma toll. walaay mbay. maa ngi lay ñaanal wér. amin amin mbay amin. wax naa la ko janoo ak yow. Hmm. ni la mag laa. dëgg la. kon ñi ma mën a ndax bareetul. dëgg la. waaye sa mbëggeel ak sa mbaax. ci man. dëgg la. ci nu bokk benn maam. dëgg la. mais su ko dëgg la. ci du laati dëgg la. ki topp ci maada sa day wala muy magam ngoone taal sama day la du ko tuddee dëgg la loolu am kon Abdoulaye Mbaye peex place ba ma am ca Touba yàlla ak barke sunu maam Cheikh Seydi Alhaaji Malick la waaye def ko ci lu rëy nag mhm. ku ma nuyu ca Touba mhm. nga léegi ma ne ma sama xarit baa ngi Mansour Mbaye wallaahi teraanga ca Touba ñu ne sama xarit baa ngi Mansour Mbaye bésu Amadou Mbaye Maodo mu mag bi xam ni El Hadj Abdou moo ci joxe woon ndigal. te mhm. Papa Racine Sy di ko présider. Mhm. maire de Podor doomu amala. Mhm. ke xam ne mooy parrain ba di sama mbokk di sama xarit di sotu Samba Diop. soxna ndela wat di aji ndela wat mhm. waaye nag invité d'honneur ba. Mhm. mooy doomu sang bu tedd ba. Mhm. ca daara ja nga wax barki démb ni Serigne Bass mi xam ni euh, plaisir la ci diine jeeg l'islam bi. ni ko fii nag miin nga ko lool ndax mooy sa kër Baye Souhaïbou soxna Baye bu mooy invité d'honneur ba walaay le six mais ca loolu yàgg na lool walaay walaay mbay walaay mbay Ablaye ma bàyyi Ablaye ma bàyyi la ba ca kanam nag waaye boobu ca kanamee boo ma laalee ba sama xale yi yëngu ah ba Mara Fall yëngu ah Mara mooy gaaya Hmm. Mara Mara mooy waalo. Mara Mara mooy soto Abdou Boli. Abdou Boli faa ay bu ca kanamee. ay ay góor gi bu ca kanamee. ma bàyyi la nag Ablaye. ah ay nijaay bu ca kanamee. di nuyu Sénégal yëpp de. wallaay wallaah. di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. amin amin amin yal na yàlla hmm. bu ca kanamee. Hmm. من وقت أنت سنو ما بشسر الحاج والد دنا لي اندي توس توت اسوارو سنغال بول خيلي ديلوسي دك باو ما نكو نك باينا لا اك ميكرو بي اج عبد الله تبارك الله ايه اميدون خدي جنرال موم دا لا وخ يارم دونا واي تاي لا يارم دو دنجله دا نكو وخ كو خول كرم نمو مل xool studio bi ni mu mel. yaram daw na. dëgg la. léegi rek sëñ Talla Mbacke moom sëñ Abdou yàllaay buur. ndax ma ne waa ma maam Mamar Diarra. tey kenn du nelaw ndax si jaaji Malick mooy suñu mbokk. dëgg la si jaaji Malick Ousmane. dëgg la Ousmane Mati Mbacke. dëgg la Alaaji Abdou Safetu Ngañ Nang Xari Mbacke. dëgg la. sëñ Talla Mbacke mu ni ma kenn du nelaw waa kër sëñ Abdou yàllaay buur mu ma si jaaji Malick mooy suñu mbokk. xoolal lii. dëgg la. Amidoune lii mooy senegal dëgg la léegi nag dama leen di delloo delloowaat kaddu gi dëgg la ngeen ñëw ci jëmm ji nu toog mhm. war a waxtaane si jaaji Malick mhm. ba ca kanam ñu dellu ca kër alaaji Mansour dëgg la nuyu nag njabootu alaaji Ale Ndiaye mhm. Abdou Aziz Ndiaye ak Baye la ñu ngi nuy dégg alaaji Ale Ndiaye kenn mënut a wax kër si jaaji Malick ak sëñ baabakat te tuddoo alaaji Ale Ndiaye dëgg xam naa ne ñoom ñu ngi nuy déglu te ragal naa balaa émission bee daanu da nga dégg seen kaddu. kon dama lay dama lay delloowaat. jërëjëf. Euh, jërëjëf Baye Ablaye. Euh, soxna Khady. sëñ euh, gërëm baax suñu bàyyi Mansour mbay xam naa danañ ñëw léegi ci seen Cheikh Sarr. ndax tey moo war a ubbi maye yi. waa la waak maa ngi koy wax léegi. lii la ñu bari di bañ ci réew mi. Baye Ablaye la. sëñ Cheikh Sarr Mouride la. yaa sayda génn wàll Mouride Ndiassane Thiawane. dëgg la Cheikh la. waaye keetoo catholique la. dëgg la jamais. <laughs> ñu ñun ñi ñëpp lañoo bokk waxtaan Cheikh Seydi Hadji Malick lii la am lii la lii la am ñu koy bañ. te lii mooy jàmmi réew mi. dëgg la fii la réew mi toll. keetoog ne catholique la. waaye mooy servir ataaya ji. dëgg la mënunoo fexe ba mag ñi duñ am wàcc waaye ñu am ci réew mi. parce que fi ne bennoo moo am ndax danoo bokk benn lutte. Eh lan la ñuy mooy ñii nga xam ne danoo bëgg a guerre tasawuf amuñu fi place. amuñu fi espace ndax euh, maa ngi jot léegi message bu monsieur le maire Bambilor Ndiagne Diop man nañ commencé ci xilaas moom it ma nga daas fanaana lool xam naa ne kéemaan la euh, bi ci dàqati mooy sunu directeur bi toog muy sëñ Pape Diène tey yaakaar naa bañ dalee tàmbali léegi ci kaw la daan yem tey nag daa dugg ci biir Sofia Diatta it nee na moom euh, maa ngi ca kanamu écran ba moom ñoom soxna Ali Maak nee na ay saak ñi nga xam ne tey si Sidaaj Malick la lañu am waaye sëñ Cheikh soo gisee ñu dugg ci loolu danoo bëgg bu sëñ Habib nuyoo ba nga joxe say addiya genre mais présenté yee ko wër uh-huh. buñ tàmbalee kenn dutul dagg eh. xanaa ñiy way yëg ko rek eh. ndax li ci ëpp solo mooy uh-huh. ñu xam ne mag ñi moom bennoo nañ ndax fii ma toog njabootu Cheikh Mamadou Mountakha ñi ngi seetaan soxna Bali sëñ Lamp uh-huh. ñoom ñoo njëkk a bég wala sëñ Mouhamed Mbacke moom sëñ Aziz Aziz moom sëñ Afe ne ma tey sunu maam la ñuy waxtaane message nii ne ma ñun ñoo ngi jàkkaarloo télé ndax sunu maam la ñuy waxtaane loolu mooy waaw lii sëñ bi wax naa bëggoon confirmé. incha allah mhm. la ñuy waxtaanee. ndax maam maaram lañ jox Farimata Seck. moo mhm. am ci Cerno Farimata ak Ahmadou Farimata. Cerno mhm. Farimata moo jur Xarim Mbakke. Xarim Mbakke moo jur Ngañ Njang mu jur maam Safiyatu mu jur maam Cheikh Seydi. maam Abdou Aziz Dabakh. Ahmadou Farimata moo jur Mati Mbacké mu jur Ousmane jox maam Dembourou mu am ci maam Cheikh Seydi El Hadji Malick mhm. kon Touba ak Tivaouane benn dawla la très waxtaan bi am interruption mhm. euh, xam naa bu ci kanamee buñ ko joxee mu nuyoo rek dañuy mhm. tàmbali waxtaan bi enchaîné euh, de ce fait damay damay ñëw ci Cheikh ndax ci euh, teranga yi nga xamante ne d'habitude moom la amoon moom la doon faral di ko joxe tey Cheikh am na yoo xamante ne dañ ci dolleeku waaw tey soxna Khady général dafa am yi ci dolleeku dañu nuyu bu baaxa baax soxna Ndeye Fatou nyang bu suñu baye Ablaye Niang mi nga xamni ni samedi beñu genn samedi beñu genn mu ngi fi won mi ngi sétane di kontan bu baaxa a baax baax mi ngi bekk ci ñom mam as mm. ak ñi mu andal ñep mi ngi bekk mi ngi ñaan bu baaxa baaxa baax wallahi wa soxna Ndeye Fatou soxna Ndeye Fatou bu baay Ablaye nyang mm-hmm. wallahi ndeysaan wallahi samedi bi mom tabarkal dal waye fim mu toll nii as bi nga commencé yëngal da nga yéegee niveau bi Facebook bi da doon toj. YouTube bi di toj. ñëpp kontaan. moo tax da nga fi am teraanga boo xam ne dama la koy jox léegi direct. waaye dencalaat yeneen teraanga yoo xam ni pour internet yi la yi nekkee ci page officielle bu Sen TV. ak ñi ne ci YouTube bi ak ñi ne ci télé bi. gars yi daal li ma leen di déggal nañu gën di partager di gën di commenter te di bàyyi seen numéro téléphone. sa ñaam dafa am loo wax léegi lu am solo ñun bëgg nañ mag ñi ba pare. ñun bëgg nañ mag ñi ba pare. bëgg nañ leen ba pare bëgg nañ Serigne Touba ba noppi. bëgg nañ Cheikh Seydi Hadj Malick ba noppi bëgg nañ maam Baye Niass ba noppi bëgg nañ Seydina Limaamul Mahdi ba noppi bëgg nañ maam Cheikh Omar Foutiyou Tall ba noppi bëgg nañu Cheikh na Cheikh Sadib ba noppi bëgg nañu njabootu Théodore Adrien Sarr njabootu Yeesu Christa bëgg nañ leen ba noppi amul kenn ku mën a jaxase suñu xel ci mag ñi ba ñu am ab xel ñaat ñoom bëgg nañ leen ba noppi yow mal xeyam fu ñu yàlla jëmee baax na fu ñu yàlla jëmee baax na mais bëgg nañ mag ñi ba noppi amul nit ku meuna jang sa juróom-ñaari hadith mba say ay ñëw mënuñu mën mën ñoo depp ci mag ñi ñun bëgg nañ mag ñi ba nopi luñ ci góobee gar ko loolu mag ñi wax yalla na yalla samul ñu mag ñi sàmmal ñu seen liggéey samul ñu sët yi fa nek ak sàtt yi fa mais bëgg nañ leen ba noppi tabarakallah légui nak mm-hmm. bijouter la solution l'islam de mm-hmm. dafa am benn jaaru aqiiqa bu mu jël may ko maam aas mm-hmm. dama bëgg kenn ci ñoom kon comme dañ ma yew comme li alaaji mbey ngone fal di wax comme dañ ma yew na kenn ñew dal di hmm. jël li nga xam ne bijouterie de la solution l'islam de moko jox mam hmm. as muy aqiiqa habi hmm. di jaaro bo xamni gal pire la waye perbet per pire la ndax dañu bekk mam as bekk nañ trop ci yow tabarakallah li bijouterie de la solution l'islam de ñoo la ko jox fi yombé légui benen bi ci tégué nak li ja euh, montre la bo xamni ni do wax nak duma wax duma duma leen or la waaw mooy montre la bo xamni dal visiteur la solution l'islam de moko djel ñu fas yéene ko may kenn ci internet yi ñi nga xam ñoo ni ci page officielle bu Sen TV. ha li montre bi damay baña wax. parce que buguma ki koy djel ci ñu kar ko. Mm-hmm. waye dal ñi ñoy jaay or yu bax ci rew mi. Mm-hmm. fi or yombé fi nga xamni ne tubaarkàlla fañ ko yombalé jeeg gi mm. nga xamni bu bu or bi dee jar million même bu féké da ngay jaay caaf. bo jaay caaf bo wàccee ngone jox sa joxe sa.